pouvoir bi dafa lancer ay ay ay ay candidats pour di espérer deuxième tour bu amee ñu réunir pour mën a peser sur la balance. oui euh, dama koy loolu damay dama dama ci sawar a tontu xam nga pourquoi parce que gis nga Mohamed comme li ma koy waxaa ah, du lettre bu ndaw ba ñu koy dugal ci poste di ko colis. bon oo koy defaroo non déglu c'est des discours yoo xam mais déglu maax la c'est que ça surtout de garde c'est un discours développé par le camp présidentiel ñoom ñoo koy distiller waaye c'est le plan B wot c'est le plan C wot Mohamed mais Mohamed quand même ñàkkul fayda quand bay nekk ay plan B ay Macky Sall Mohamed a rompu les amarres avec Macky bi mu ko wooye et puis ils ont fait face mu wax ko ko carrément il a rompu les amarres quand il a choisi Amadou Ba parce que tous les critères qu'ils avaient posé était rempli par Mohamed est-ce que tu comprends au niveau de Benno Bokk Yaakaar. Mmh. c'est kon, ça l'histoire kon da ngeen mer ngemb. non en fait du mer ah pourquoi ñuy mer non du ñu mer c'est-à-dire que nous on a dit que écoutez ah maintenant lui tant que c'était le président Macky Sall ñun on n'allait pas poser de candidature on n'allait pas s'opposer mais Macky ci boppam nee na bokkatul mais comme on dit xanaa nag on est libre quand même on est assez responsable pour prendre nos responsabilités ensuite il ne nous choisit pas alors ko nous on était premier au concours il ne nous choisit pas il choisit Amadou Ba on dit ok et depuis ils ont rompu les amarres et je dien loolu dinaa ko wax ñëpp dégg ko du téléphone du message muy jokkalanteeg Macky mais su doon loolu Mounirou Sy kenn du ko dàq primature Mounirou Sy dinañ ko dàq primature. ah nekk déglu rek su doon loolu Mamadou Moustapha Diagne kenn du ko dàq ministère de l' éducation nationale quand il a dit qu'il était ak John bu doon loolu man mi El Hadj Sall quand j'ai voulu voyager ils ont retiré mon passeport. au niveau de l'aéroport non passeport boobu sax dañ ci passeport boobu dañ ciy taxaw parce que man bi ah, ma ko déggee j'ai jamais été d'accord avec vous grand parce que yow ci ñoom nga nekkoon ñu jox la passeport diplomatique nekkatoo ci ñoom ñu nangu seen passeport non ce n'est non écoute tu sais c'est que am na ñu nekkul ci ñoom ñu bëri tey jii ñu am passeport diplomatique est-ce que tu sais ça am na ñoo xam ni nekkuñu ci ñoom dañu am passeport diplomatique c'est pas parce que tu as que tu as le passeport hein y a des marabouts yoo xam ne tey jii ils ont beaucoup de talibés à l'extérieur dañ leen di may ay passeport y a des gens malades yoo xam ni tey jii c'est des gens qui doivent aller se soigner à l'extérieur dañ leen di may ay passeport diplomatique te passeport diplomatique c'est pas extraordinaire comme les gens le croient et le pensent c'est que c'est pour juste pour te permettre de traverser les frontières mais c'est extraordinaire là non c'est pas extraordinaire c'est mais écoute tu man avant passeport diplomatique combien de visas oui combien combien de visas donc c'est pas je ne veux le débat mais dama lay wax ni pour encore réitérer que ce n'est le plan B ni parce que firnde yi ma lay jox moom moo am mu niru suñu dàq ko hein euh, Moustapha Diagne ñu dàq ko ak ñeneen ak ñeneen kële Habib Niang qui avait parrainé <laughs> à Thiès waaw après ils l'ont retourné pour en faire un conseil spécial de Amadou Ba ah maanaam maanaam maanaam bi Amadou Ba demee bay débaucher seeni élément waaw bay dem bay débaucher suñuy ah, ñu noonu nañu nekk plan B kon plan B kay xanaa kenn dañu dañuy bàyyi ñu dérouler comme ni ñu bëggee mais plan B boo xam da ngay débaucher ay élément di leen proposer ay postes Mounirusi bi ngay gis ils lui ont proposé un poste ministériel. ah oui ak beaucoup d'argent oui il a refusé. donc tu vois c'est des choses qu'ils disent comme ça mais eux ils savent bien que nous ne ni le plan B ni le plan Z de Macky Sall. loolu moom dama bëggoon mu leer nañ aux yeux de l'opinion